77 244 15 45 c'est Diaspora Soponabi votre satisfaction nous tient à cœur jaarama Diaspora Soponabi cher jentenet yu enquête 221 dal leen euh, jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko vox populi mi tiis gi nga xamante ni Sénégal moom la fanaanoo ni ki démb yéenekaay bi ne ci diwaanu Koungheul de accident bu metti moo fa am ci benn bus boo xamante ni daf daan jugee Dakar alxames bu yàlla sàkk doon dem nag ci diwaanu Kédougou bus bi ña ca ëpp nag ay guinéen ñoo ca nekk te ñoom guinéen yooyu limu ña ca nekk commerçant bari woon na lool waaye accident bi metti gi foo ko rek weesu na ko ndax fukki nit ak ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan ci tamit ñoo xam ne seen blessures yi metti na lool lim gi toll ci fukki nit yoo xam ne jamono ji ay blessé grave lañu de ak yeneen ñeen fukki nit ak ñeent yoo xam ne ba jamono ji ñoom ca biir hôpital ba accident bi metti gi mu metti yéenikaay bi des deeswaat na ci li ko indi ne bus bi pneu avant bi moo éclaté wu lii moo indi accident bi fukki nit ak ñeent mu jësee ñàkk seen bakkan yéenikaay bi des tamit ci mesure yi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal gi jël nañ ko nar a jël ay ndàmpaay jébbal ko victime événement yi fi amoon ci diggante mars yéenekaay bi waxtaan ak famille victime yii ñoom tamit ñu gis ne bu nu sañoon daal état bu Sénégal gii jiital justice ubbi nag dossier ci événement yooyu Amadou Ndiaye bokk ci kenn ci famille victime yi moom mi ngi xamle ci biir yéenekaay bi ne rakkam ci boppam la ñu rey te jàppul na way juróom bu jigéen dina accepté nag ñu koy jox xaalis ngir mën koo dëfal la ko gënal dëgg nag mu di dossier yiy dem ci yoon comme ça ñu mën a xam kan moo rey rakkam keneen ci famille victime yi mu ngi xamle tamit ci biir yéenekaay bi ne nguur gi daal ba ñu jëlee élection présidentielle yii amoon nañu yaakaar ci ñoom da ci wàllu justice xabaar bii nag la ñu war a mottali Amadou Ndiaye moom di xamle ci biir yéenekaay bi ne sama rakk ji daal nañu xam kan moo ko rey rek ñun lii dong la sàkku nag ci état bu Sénégal Lucie di keneen tamit ci biir yéenekaay bi bokk ci famille victime yi moom jàpp ne ne ñooy bi dara gënu koo rafet te dèjà daf ñuy jox yaakaar waaye moom Lucie Sané mu ngi xam ci biir yéenekaay bi ne dossier yi daal buñ ko rangé daat koy du mooyoo ñun suñu famille bu kanamu yoon atte la comme ça combat bi daal di jeex maître Amadou Ali moom di xam la ci biir yéen gaay bi ne li wér te wóor daal moo di état bu moom ay choix la am soit mu continuer lii muy bëgg def jël ay ndàmpaay nag jox ko famille victime yi su ko neexee tamit mu daal di annuler nag loi amnistie bi commencé def ay jugement ci dossier événement mars 2021 jàpp février 2024 boo ay moom maître Amadou Ali Kane bi nga xam la ci biir yéen kaay bi ne su boobaa juróomi at yi président Bassirou Diomaye Faye di def yépp nag coow lay doon ndax atte subangoon guddeeg bëccëg ay ci la ñuy dëkk duñu tal sax liggéey moom avocat bi di xamle ci biir yéenekaay bi ne tribunal yi sax laa la wax dana fees ki dossier juge yi danañ dem tamit ba sonn boo ci boolee nag reddition des comptes yi nga xamante ni jamono jii ñu wax ak yéen rapport yee ngi génn benn par benn te dalay wóor ne fi mu toll nii procureur dina ci ubbi ay enquête ñu commencé àtte tamit dossier yooyu moom maître Amadou Ali Kane di xamle ci biir yéenekaay bi ne bu ñu naree ubbi nag ay dossier ci événement mars 2021 yii ak dossier yi xamante ne nii moom la corps de def danañ dem ba benn moment suñu waaye yéenekaay bi xamal nañu ne rapport yooyu nag fi toll nii moo ngi taw benn par benn bu nu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi of nag lu tolloo quatre laa la wax recevoir na ko ci atum 2022 fukk ak ñeent nag ay déclaration de patrimoine la ñeel am na tamit neuf rapports yoo xamante ni ndekete jébbal nañ ko procureur depuis te ci biir rapport yooyu bokk na ci ñu épinglé Prodac mi nga xamante ni mu ngi ci ministère de la jeunesse les ko niki démb te laa la wax Serigne Bassirou Gueye ak la mu def bokkul de donte nag ci rapport bi am na ci ñu ñu épinglé ay dossiers yu tàng jër nañu teg ko ci table procureur bi Serigne Bassirou Gueye teg baaraam nag ci fond force Covid 19 yi nga xam ne am na ay njuuj njaaj dëggal na ko ci biir yéenekaay bi de am na ci ñoo xamante ni ci rapportu 2022 bi faute de gestion lañ leen di toppee bokk na ci waa Prodac am na ñu ñuy toppee tamit mbiru escroquerie surtout ci ay deniers publics ci biir assemblée nationale tam entretien ba am na ay njuuj njaaj ak ay oto yoo xamante ni dañ ko doon réparé yéenekaay bi xamal nañu ne am nañ ñu ci épinglé député bii di Cheikh Seck tam di maire bu Ndindi dossier mu ci kanamu procureur jamono ji ci biir rapport bi tamit yéenekaay bi xamal nañu ne téeméeri fonctionnaire juróom fukk ak ñeent boole nañ leen ci ca nag ndax dañoo lankoon ne duñu def déclaration de patrimoine ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi génn ci seen service yéenekaay bi ne lii yëpp nag mu ngi xewee ci nguurug Macky Sall te moom président Macky Sall ba jamono ji ñuy wax ak yéen politiquement soriwul Sénégal de ndax amul lenn lu ay aliyem di def laa la wax te lu ci loxoom ba ci réunion député benn Bokk Yaakaar yi ñu génn moom président Macky Sall daf leen a woo téléphone sàkku nag ñu daat koy def haut-parleur ci réunion bi ba noppi jox leen xalaatam maanaam amul dara dara loo xamante ni a fi mu toll nii mu ngi xew ci benn Bokk Yaakaar di rëcc nag président Macky Sall position bu seen coalition bi mën a jël moom président Macky Sall ànd na ci libération yéenekaay réeroo kay fi mu am rapport ya nga xamante ni par force de xoolal rapport 2022 bii ni ni démb lañ koy soog a publier OFNAC nag am na ci ay délinquants yu bëri yoo xamante ni signalé na leen justice nag war cee jël wàllam bokk na ci détournement ba am na ci commune bu Ngandé maire ba ca boppam laa la wax Mamadou Sow tracteur yañ jagleeloon askan ba état bu Sénégal moo ko joxe woon def ci doon bambu laa def ko muy moomeelu boppam moo tax fi mu toll nii nañ ko te yemu ca sax nag koy toppee mbiru foncier te commune bu Sindian tamit Thierno Diagne rapport OFNAC bii daf ko épinglé ci ay dossiers judiciaires yu bari bokk na ci nag di détourné alal gu takk goo xamante ni coopération Sonatel bii ñoom ñoo ko doon jébbal askan ba mu daan jël xaalis bi di ko def ci poosam moomale ko boppam te commune bu Faoun tamit noonu la fa demee budget ba ñu jagleel loon ay salle de dañ ko détourné ba léegi si laa la wax kenn tegu ko bët salle de classe tamit kenn tabaxu ko source a moom di laajte lan moo taxoon laa la wax publier wuñu rapport 2022 bi lan la sëñ Bassirou Gueye jamono bi ñu ko tabee pour mu daal di publier rapport bi en tout cas président Bassirou Diomaye Faye moom pression la ko teg de démb nag génne na rapportu 2022 bi ay scandale yu rëy rëy rëy lañ cay dégg lépp nag mu ngi woon ci taabalam li jaralaat laajte kay mooy lan moo taxoon publier wu ko pression bi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye tegoon nag Serigne Bassirou Gueye moo tax mu génnee rapportu 2022 bi ñu ci tudd nag 14 cas yoo xam ne mauvaise gestion la 10 nag yoo xamante ni ci corruption la am tamit ay cas yoo xamante ni ci fraude la détournement de deniers publics ba ci litige foncier coowalu suuf rek lu tolloog juróom-ñaari kaa am na ci moom Serigne Bassirou Gueye mi ñu dénku OFNAC yemu ca ndaxte épingle na yenn ci ay kilifa bokk na ci maire bu Sindia dana dem ci kanamu procureur moom Thierno Diagne dana jàkkaarloog yoon maire bu Ndindi tamit dana jàkkaarloo procureur ak tamit yenn ci ay kilifa yi nekk ci diwaanu Ngor bokk na ci Assane Samba maire bu Gandé Mamadou Sow Ibrahima Ba Diop si ak tam doomam ju jigéen ji ñoom i tamit danañ jàkkaarloog yoon enquête yi ni kaay fi mu toll nii parti socialiste ñoo dajaloo nekk benn yéenekaay bi di xam leen ne Khalifa Ababacar Sall fexe na la tuuba jokkoo nag Aminata Mbengue Ndiaye te lépp nag moom moo ko dox yéene bi nag lenn kese la yéenekaay bi xamal nañu ne mooy dajale famille socialiste bi rek ñu nekk benn na commencé politique bi ngir mën a am avenir bu jaar yoon surtout ci élection yi ñu jëm ñu boole seen doole ngir mën a am limuk député yu am solo foofu ci assemblée nationale le point actu moom def taxaw seetlu ci kaawu Karim Wade farawaat dañ jaag ndekkte li muy dox ci suufa ëpp li muy dox ci kaw kenn gisagu ko Sénégal waaye yéenekaay bi xamal nañu ne Karim ba léegi laa la wax mu ngi ŋàbb génération du concret bi ndaw ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale mu ngi en contact ak ñoom de waaye yéenikaay bi deesuwaat na ci lam doon liggéey nag jamonoy élection présidentielle yi ne moom Karim Wade mu ngi doon waxtaan naa la wax ak Amadou Ba demoon nañ sax ba benn moment ñu déggoo woon ci Amadou Ba mi bu jëloon nguur gi poste premier ministre bi jógee ko ci PDS am tamit yeneen juróomi responsable PDS yoo xamante ni dinañ bokk ci lii bokkoon na ci luñ doon waxtaane ba sax yéenikaay bi dañoo xamal ne président Abdoulaye Wade bu calcul yi jaaroon yoon Amadou Ba la waroon recevoir warul woon a recevoir Bassirou Diomaye Faye lan moo tax Tafsir Thioye nag ñemewu ko woon publier lépp yërekaay bi deesuwaat na ci jokkoo gi Karim Wade doon jokkoo nag ak Macky Sall ngoon guddeeg bëccëg ci wàllum protocole ak fa mu mujjee lépp nag avant élection présidentielle yii yéenekaay bi deesuwaat na ci de bu dee kaaw président Abdoulaye Wade nag yéenekaay bi xamal nañu ne depuis ñaari at a nii waxatul daraay politique lijjanteetul sax responsable libre bureau yi fi mu toll nii kay Karim Wade mooy doxal l'évidence yéen kay ne li wér mooy jamono ji moom dañ Bassirooy doxal de mook président Ousmane Sonko waaye buñ doon toppante laa wax am na ay kilifa yoo xam ne jamono ji ñu ngi jaabante ci yoon ndax moom président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko avant ñuy jot nguur gii ci jamonoy Macky tuuma yu dul tuuma jinne rek teg nañ ko ci seen ndodd te bokk na ci kilifa yi leen gënoon a sonal ñenn ñoo bokkoon Ahmed Suzanne Camara ca la bokkoon Pape Malick Ndour ca la bokkoon Laat Diop ca la bokkoon Mamadou Masali ca la bokkoon Moustapha Diakhaté ca la bokkoon ñoom ñi ñëpp laa la wax amul lu ñu yekkul waa Pastef te toppante doon am tey jii noo waxatuñu seeni mbir de tey jii nag gannaaw ba waa Pastef ñoo nekk ci bopp nguur gi est-ce que dinañu changer discours lii nag moo jaralaajte bés bi le jour moom defaati révélation yu rëy na ci fond force covid 19 yi nga xam ne rapport OFNAC bi def na ci révélation de ndax Mansour Faye indiwaat nañu kaam ndekete laa la wax mu nga ca procureur leer yéen kaay bi dañu xamal ne lépp nag ca ceeb bañ doon distribuer la fi toll nii nag Cour des comptes rapport bi mu def boo ci boolee rapport OFNAC bi nga xamante ne nii moo ñeel atum 2022 procureur amul beneen solution de mu lijjanti leen de woo képp koo xamante ne nii épinglé nañ la treize rapport nag fi toll nii moo am enquête judiciaire lépp mu ngi ñeel nag dossier yoo xamante ni atum la woon ba tey yéen bi dañu xam leeg Fadilou Keita moom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

yaram jokkool ak ñun ci 77 604 07 71 pharmacie Al Maktoum daal seen jàmm ak seen wér yaram ak naataange lii rekk moo ko tax a jóg jaaraama pharmacie Al